bilan bi ñëpp teewlu nañu ko te defe naa ne am na ñu wax tamit ne lu rafet la waaw ndax euh, bu ñu defee deux ans tombeek mu am Covid mënuñoo def li ñu bëggoon a def yëpp macha allah sant yàlla la mais am na au moins lu ñu jot a def. impactu calabas yi euh, moom mooy xeex njëg ak bor te loolu defe naa ne lu ñu war a rafetlu la ndax jigéen ñi dañoo sonnoon ci dem di leb ci. Eh, micro microfinance yi di am problème pour fay wa té légui défé na né benn jigen defatu ko ci li mëna wax dal ku soxla lu yem ku yamalé sa bëgg-bëgg kalabaas mu né la ko fajal xana nga soxla lu bare bare bari wa ñun dal amna luñ ci japp lu baree bari sax ci manam ndax défé na né nit ki dëgg la nit ñaangi wax né dañoo bëgg li dañoo bëgg li waaye défé na bo amé dund am wér yaram say jabon ñuy jang ma defe naa ne leneen loo ci yokk de dootul bareeti loolu daal defe naa ne mooy baasu dundu doomu aadama bi. dañoo bëgg regrouper calebasse yi nga xam ne dañuy respecter charte calebasse de solidarité ñu regrouper leen ñoom ñëpp ci biir Renkas waaw ndax am na calebasse yoo xam ne ay turu calebasse lañu mais duñu calebasse de solidarité loolu nag moo indi jafe-jafe yi mais ñi ko respecté bëgg nañ ñoom ñëpp ñu gis seen bopp ci Renkas. fiddi leen ngeen kóllëre pour juróomi ñaari nit yi fi nekkoon. ñun action de carême suisse amuñ ku ñuy tànn ak am ku ñu tànnul waaye nag su fekkee ni liggéey bi mi ngi dox ci nañ ko bëggee suñuy moyen dañ ko ca def waaye bi ñu gisee na muy doxee du noonu nañ ko bëggee ñu téye suñuy moyen loolu aussi xam nga waxtaan wax dëgg ci la ñu bàyyi ko xel mais yaakaar naa ni incha allah présidente ak gars yi ni ñu la wóoloo ak ni nga démarré woon séntu nañ bu baax a baax ndam lu rëy rëy rëy ci ren kaas ci at yi di ñëw yal na yàlla jàppale. ñun nak ñuy dajé té dara lu solidarité et donc c'est important que vraiment nous diko bayyi xel ci suñu programme pour ça action de Carême Suisse dina japp ci Renkas goudi ak euh, leen tabaxal ab siège recruter ab gérante jox incha allah leneen ak leneen dina ñëw waaye li am solo mooy nañuy fàttali bàyyi xel toujours li tax ñu sos kuréel yi ndax bés bu ñu ko fàttee rek kuréel yi day nasa nasaxaay beneen bi mooy dajee dafa baax ci kuréel c'est vrai président sa mandat yombutoon bu njëkk bi parce que dafa tombé coronavirus coronavirus bi tax kenn amul jot dajee kenn koo bëgg woo mu ne corona bee tax donc ñi ngi ñaan yàlla mandat bi ci tegu nii que du am. benn corona bu gàllankoor dajee yi ñu war a def ci groupement yi ak ci calebas